bis bi de bisu bisu sant la euh, bisu sant la bisu mbégte la boo xamante ne si tey defe naa ne tey ku ñëw ci dëkk bi gis murid yi ni ñu booloo ñoom ñëpp ànd di jàng xasida sëñ bi digle ko muy mbégte moo xamante ne si wax dëgg yàlla ñëpp si bég ñëpp ci kontaan loolu nag ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax te di ñaan yàlla suñu borom lépp loo xamante ne si ñaan nañ ko ci bis bi ak lépp loo xamante ne suñu borom digle na ko rek ci ñaan yàlla suñ borom defal ñu ko ñu am ko ci nuñ ko bëggee di sant bu baax dafa dëgg yàlla tey ku gis dëkk bi ni mu mel nga gis murit yëpp mboolem jullit yëpp sax laay wax ñoom ñëpp ñu ànd maase nekk benn ñoom ñëpp di ñaan ñii di jàng alxuraan ñii di jàng xasida sëriñ Mountakha déglu ko bisu tey bi nga xam ne daanaka senegal gépp boo seetloo tey daje nañ si daje nañ si daje nañ si dëkk bi muy muy mbëgte di mbégte mu rëy moo xam ne wax dëgg yàlla am nañ ci rafet nañ ci njortu am nañ ci yaakaar ba bis yi daal buñ ci defee buñ ci defee ñaan yàlla suñu borom mën nañoo musal ci musiba yi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi ak jafe yi nga xam ne moom la moom la moom la nit ñi nekkee yàlla suñu borom musal ñu ci loolu daal moom moom moom moom na ko murit bu nekk fas ci bis bi jëlee fi feebar bi jëlee fi jafe-jafe yi nga xam ne moom la moom la moom la moom la murit yi moom la euh, Sénégal gépp yëpp nekkee ñaan nañ daal yàlla suñu borom ci bis bi daal buñ fi jógee lépp luy jafe-jafe ak lépp luy musiba suñu borom dàqal ñu ko ci bis bi te aajo bu fi yaa euh, nit indi yàlla suñu borom euh, saafara ko te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. comme yëg-yëg bi si murid yëpp am rek di sëriñ bi wootee ba léegi wax dëgg yàlla dañ ko jël def ko suñu pas-pas def ko suñu yitte ñu am possibilité ñëw te yàlla dogal na tamit am na lu ñu mën tuuti si xaside yi ñu ne pourquoi pas daal duñu duñu ñëw def déplacement bi parce que jar na ko daal du gis ni jar tar tuuti nag waaye sant la rek daal lépp si sant gi la rek. Ah, sant nag ak kontaan lu baax a baax a baax ndax bis bu bés bu màggee nii moom wax dëgg yàlla suñu xol da see sedd bu baax amuñu lu sëñ Tuubaa kon bu joxee ndigalu tool nii moom ñu si sant bu baax a baax a baax fas jëfee ndigal bàyyi tere rek waaw lépp lu mu bés bi laa si taxaw suñu kat kéemtalaay kattan. kawe kawe na suñu man lool lool lool moo tax ma bàyyi sama yitte yëpp ñëw taxaw fii ndax mbooloo mu toll nii moom kenn mës koo kon ñu ngi ci bu baax a baax a baax fi gën a sant suñu Muntaxa di ko ñaanal suñu borom gën ko fay yàggal gën ko may kattan ba lépp lim naal ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi mu ko lu yi yi mu ko àggale ba tam naala ñu bokk ko ñun ñëpp fekkee ñëpp yëg-yëg bi mu gën a santaat Sëriñ Tuubaa ñaanal Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér di ñaanal ki nga àndal muy sama xarit di sama doomu ndey gestu ko gis gis ko ak pas-pas bi muy doxee ci yoon yi moo tax ma yëkkati xasida Sëriñ Tuubaa yi no ngi koy ñaanal bu baax a baax nag bis bi moom ni ma ko jàngate mooy euh, ñun ragaluñu dara sëñ Tuubaa lañ jël teg ko kanam kanam bu dund moom du bisub dee ñun kenn dangu leen jël teg ko suñu kanam mooy Ahmadou lu ñu digal dinañ ko def lu ñu tere dinañ ko bàyyi. mbooloo mi moom sëñ tubaa moom teyam ju ne ah day gàcceel démbam. Aliou Ndiaye lay toog maa ngi jógee Touba Sourang Touba Sourang ak Touba Mbacké. Euh, diggante bi set kilomètres la ak jumaa ji suñ jumaa ji ak jumaa ji 7 kilomètres la xanaa kontaante bi ñu xëyee suñ jumaa ja def nañ fa lañ fa war a def lépp ña nga togg dañ ay añ tàngal kafe togg ay meew berndeel waa waa dëkk ba ñëpp suñ ko xale yaak ñëpp ña nga nekk ca biir jumaa ja di jàng ay xasaayit man nag mën a leen maa ngi ñëw dem ca jumaa ji siyaara ji te ñëwaat ànd ak liggéey bi mbooloo moom xanaa gën a santaat Serigne Touba rek ndax lépp Serigne Touba ko waral ndax di keroog bi nga xam ne sëñ bi wax na ne tey jii bu bisab tey bii na ngeen ma jàngale ay xasaayit na ngeen ma na ngeen ma na ngeen ma na ngeen ma santale suñ borom moo tax mbooloo mi am tey di ñaanal suñ Muntaxa nag mu yàgg fi loolu te wér ak mbooleem jullit yëpp ak ñi nga xam ne ñoo jàng xasaayit yi te tey mu yëkkati leen ñi ngi ñaan yàlla ak Serigne Touba Mbacke yal nay bis bii di gën di am ndax bisab tey bii moom ah, moog ak magala yam ndax tey jii tey boo xoolee magal gu mag ni muy feesee rek ni la bis bi feesee kon ñi ngi sant yàlla di sant suñ Muntaxa mi nga xam ni mooy borom réew mi. dajale sunu som ba mu dëgër ñu dem waxtaan ak comité bi nga xam ne moom la sëñ bi dénk bis bi ñu jox ñu waa ñu am doole ñu dabale ko maanaam lu toll fukki nag ak yàpp ak pompe terre ngir bëgg bëgg koo teer terale jullit yi nga xam ne moom la yàlla def maam ñu taxawee bis bi ci ndigal sëñ Muntaxa yàlla ko yàlla yokk ay ay xéwal baax a baax a baax a baax commerçant yu mag yi nag ñoo jiitu. doxal ndigal ñun tout tànk yi nga xam ne maanaam tey ñun ñooy taalibe sëñ bi topp seen ginnaaw dari nag mbirum sëñ Tuubaa dafa nekk loo xam ne maanaam tey ji képp koo gis rek ciy bëgg a jëm ci ngir bëgg caa fis fis goo xam ne nga ciy doxee ndigal ci te ñun euh, xale yi Tuubaa ci ndigal la ñuy dox ndigal daal dangay daw jëm ci maam doo waaxu sax jëm ci da ngay daw jëm ci ngir maanaam kala ko digal ak nam la ko digale te lii maam day baatum digal boo xam ne dafa faw xasun njort ndax xamuñu lu sëñ bi jublu ngir digale ko julli di ñu koy taxawee moo tax naa kontaan rek teg sant yàlla ndax lii am na ñu ko bëggoon te mënuñu ko kon bu nu yàlla ak yonent bi ak sëñ Bamba dimbalee nu fekkee ci liggéeyub sëñ Muntaxa bii ba di ci ñàq sant yàlla rek di ci ñaan fekkee waat ko ay ati ati at di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér sant yàlla rek ndax lii nit bëgg na ko te amu ko kon bu nu yàlla baaxee ñu déggoo ko ànd ko liggéey ko tàmbale ko ci bisimilah rahmaanam ba ñaan yàlla fekk ko ci alhamdulilah sant yàlla rek di ñaan ñu feewaat ko ay déwén te sëñ Mountakha dina joxe liggéey nag ñu di ko liggéey bu sell ndax képp koo xam ne nga marché Ocass rek da cee ànd ak kontante gu kenn bëggul sa morom gi ëppale la ci lenn ci liggéey beeg ci sonn beeg lépp kon ñi ngi sant yàlla sunu borom di ñaan yàlla sëñ Mountakha di am itte yu mel nii ci ñun jaam yi du ñu dimbali ndax lii bëgg noo dimbali tax mu def lii bëgg noo dimbali rek a tax mu def lii waaye na ko leer ne sox euh, lii mu ñu defal duñu ko fàtte ba ci suñuy sët ndax kenn ku ne bëgg naa liggéey Serigne Touba Xaadim Rasul kon bu nu yàlla dimbalee ñun waa waa marché Ocass ko tàmbalee ca ka ca gën a tuuti ba ka a mag dogal nu fekke ko tal ko dañuy ñaan yàlla suñuy dund ba suñuy njaboot di fekke lii ndax lii kat neex na ci xol lool nañ ceeg mbégte mu mat a mat di ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fu loolu tëwéer euh, man la Alaaji Fall euh, jiite marché ambulant Touba marché Ocass comme niñ ko yàggee defee rek ndax marché Ocass moom Euh, nekkul ñaari marché benn marché la euh, ndaw yi fi nekk tamit ak mag ñu fi nekk ñoom ñëpp dañoo booloo boole seen i doole euh, jokk ci liggéey bi nga xam ne sëriñ Serigne sëriñ Serigne Mountakha moo ko santaane ñu nekk ci comme ni mu ko santaane rek muy jàng xasida ak berneel gan yi lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko rek ñu xëy nekk ci. waaw bu fekkoon ne lu ñu tàmmul moom du yomb waaye nag dafa mel ne lii. yàgg nañ koo def euh, ci wàllu bernde képp ku dëkk Touba moom bu ñu la ci woowee rek yàgg nga ko def ndax màggal mooy tax te bés bi nii daf ñooy fàttali màggal ndax bés bu mel nii sax mosuñu koo gis nag moom bés boo xam ne jàng alxuraan jàng xasida képp la euh, bés bi demee nii mosuñu ko gis guléet ñu gis ko ci Serigne Mountakha dañ koy ñaanal mu yàgg fi te waaye ci wàllu liggéey bi moom euh, saa yoo xamante ne ni wootee am na rek ñun ay donga rek lañ jekki nañ ci loolu noonu te pare nañ ci te lépp loo xam ne laaj na ko tamit incha allah danañ ca jéem la ñu man lépp nag moom xëy na du suñu télé moom egg na ci waaye lépp sëriñ bi la ñun moom dañuy jéem rek waaye lépp lu sotti rek sëriñ bee ko sottal bala ñoo toll ci kàddu gi dañuy wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba ñoo ngi sant ñëpp du baalu ak ñëpp àq di wax ci kàddu ci turu mbooloo mépp ahlu sabar ndax ñoo ci gën a tuuti ñoo ci gën a xeeb dañ ciy kenn rek ci déwénu waañ wi waaye bu ñu waxee wax nañ ñëpp ñoo ngi ñoo ngi leen di siyaare di leen xam ne bis bi ñun dañ ciy sant bu baax a baax te mbooleem ku dib julli war nga cee sant ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne yonent bi dafa tànn mu tànn ca la yonent bi tànnoon kon képp ku ci bokk ne rek yow da ngaa war di sant foo toll ni ñu ko defee nag dañuy gën di sant rek tey ñaan ay xéewal yu yaatoo yaatu di ñaan sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool ba naa lim sëmb yëpp mu ànd koog ñun bi jaay rasulullah ndax sëñ Muntaxa da waxuma la sagub murid waaye sagub jullit ñëpp la kon nag ñëpp war nañ ko ñaan mu yàgg fi ndax lii mu def day jullit ñëpp la ko defal lii nag dañ ciy lenn ci benn ruq rek waaye yaatu na ci dëkk bi wax dëgg yàlla man de mosuma koy fekk xanaa événement màggal tey tey boo xoolee mboole mi xam ne mel na ni màggal ba mbopp ko te lépp rek mat jëwrin rek moo tax suñu daxaa ko kon nag ñoo ngi sant ñëpp di ko ñaan mu yàgg fi lool waaw lii la ndax bis bi ku doon xalaat ne màggalu Tuubaa du am wala bu amee defet dala ci am boo gisee bis bee sam xel dana dal ndax sëñ taxaa loolu la wax te ñoo ngi ñaan rek bu ñu fi jógee lépp lu ñuy wax jàngoro ci àddina bi wala lu mën a doon rek yàlla ko bis bi yóbbaale yàlla na yàlla na fi yem ba ñun ñëpp ñu nekkaat ci jàmm nekkaat suñu sago te maanaam sëñ Tuubaa moom amul tànk gannaaw tànk kanam la am lii bu jàngoro ji yàqalul benn murid dara yàqaluñu dara ndax ñun sëñ Tuubaa rek lañ bëgg sëñ Tuubaa lañ gëm bu ñu doon dee ba jeex itam ñun sut ñoo néew ci corona bi sëñ Tuubaa lañ moom lañ bëgg